ndaxte su ma demee ba am tey ndam su dul woon seen jàppale ak seen Pastef ak gunge bi ngeen ma gunge ak loxo yu set tey xëy na lii duñ ko fi am loolu nag waxuma ko ci tubaab mais dinaa ko dinaa si taxaw tuuti loxo yu set ndaxte maa ngi expliqué sànq ministre ma ne ko ay góor lañ fi am man du ma woon seen ministre seen mag laa woon seen rakk laa woon ndaxte am na ñoo xam ne ñoo ma fi mag di si beral nuyoo nag kenn koo xam ne mooy doyen kër gi muy bay Beydi Gaye Beydi Gaye vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant mooy doyen bi fii lañ ko fekk te ñaan nañu yàlla itam mu toogaat fi gunge ministre bi ndaxte liggéeyam rafet na liggéeyam seet na te moom moo teete xale yépp mais gërëm yi tamit ministre bi si oyofaayam ndaxte ba ñu nekkee table de ministre ba ma nekkee ministre des télécoms vraiment seen jigéen laa woon mais dañ ma uufoon nee naa ko nag ni ma uufee woon man tam na ma continuer uufee noonu di parce que xam naa ne man na ma xelal si fa nga fa may jëm ndaxte xam na si lu bari ndaxte ay xaritam yu bari fa la ñu mu boole ma xaritam yooyu mais man tam lépp la nga xam ne am naa ko fi xam naa ko fii bu mu hésité sama bunt sama vraiment xel xalaat lépp lu ma ko si mën a jàppale dinañ ko jàppale ndax dañ koy gërëm di sant ndaxte li mu nangul président de la république tey dañ ko siy gërëm di sant di gërëm personnel bi aussi pour liggéey bu ñu def ak mom bay euh, tax ñu gën xam ministère bi ministère bi gën taxaw euh, euh donc ma koy ma koy remercier wax ko ni ko euh, yeen yeen nga fi tay tey daanu liggéey incha allah daan liggéey si si jàmm lu mu doon li ngeen amone fi ak mom dinaa ko gëna dëgeural mais du man maa ñëw di yàq di di wala di toj ministère wala def neen même gouvernement bi la même Euh, suñu ñoo bokk lépp donc il faut que ñu gëna continuer renforcer lien yu ñu am yooyu loolu moo gën a taxawal euh, Sénégal Sénégal non la donc euh, mënuñ dem mënuñ dem mais Sénégal nga fi ministère yang fi gouvernement baa fi donc lolu moy moy dëgg lu nu président de la république sant xam nañ ko bu baax parce que nun ñoo ngi bokk si ñu yaakaar ni Sénégal ta ba gën wara nek nek ben ku nekk mën nga am sa xalaat mën nga am sa sa jiis gis mais Sénégal benn la il faut que ñu ñu dooleel ko euh, parce que euh, lii xew si bitim réew lii xew si réew yi nga xam ne ñoo ngi nekk si euh, à côté du Sénégal rek war na si frontière u Sénégal war na tax ñu gën a xoolaat suñu bopp ñu gën a defaruwaat pour téye sunu suñu réew fexe bay développer beneen politique ba nga xam ni dana tax Sénégal yëpp gis seen si seen bopp xam seen réew gën a jàpp seen réew